Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Taysiroul Wousoul bu Oustaz Alhaji cam ñu gën koo xam ci Moustapha Gueye 2 al alimul allama abonné leen ngeen jotin mboolemi xibaar xam sa diine rek moo ko tax a jóg ak xew-xewu jamono kon mbokk ñu ngi lay ñaan nga abonné te nga bës cloche bi yokk ñu tuuti sens an nga bës fii bi nag bësal fi nii ñu bind s'abonner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 وانت جلي جينا نتبي ان صلى الله عليه وسلم إيه، نوغي نوغي درس يقمني باغوني نكي عندك نون شي كاشف الباسي إيه، عن فيضة الختم أبي العباس ومولانا الشيخ حاجي إبراهيم نيس رضي الله عنه نجي درس وولي يومي متابع كاشفيل الباز وفكيان الطبع مي مولوك إمام الشيخ أحمد التجان ماكي جي باس 122 ورد لكي وخ صاحب الرماح مي الشيخ عمر من قمني نيبو داكور نتي وانتي الشريعة تجي أحقق نين وذكر تدين صاحب الرماح برم رماح من قبل المشهود بني سيدل ونيل كو بالتبحر تجيجو صاحب الرماح من قبل سيدل نتمو مأجيجو في علمين جنياري قمقم يي خم تزني أبو فكي ندفع آه، إضافة لن يحذف النون قلي أجري إضافتي كو كنيو آه، جرامير نجيجنا قم لما يخ في علمين في علمين الشريعة والحقيقة وعندي كم قدر في إضافة في إضافة إننا في علمي الشريعة والحقيقة وتمين وذكرت لنا صاحب رمع برم رمع المشهود من قمنا كن سيد لو نيالكو بالطبع حوري جيجيجو في علمي جنياري قم يلي موانا يرقم قم يلا من الشريعة ما هي الشريعة محمدية والحقيقة أك حقيقة ما مسيرة نجني جيجل وأنت سيروين دفع جيجتي الشريعة والحقيقة وأنت والتبرز أقرأ فيما تنيار قم قم يدي الشريعة والحقيقة أتم التبريز قنثام تيعك رو إيه، كوكمي الصاحب الرما مش عمر فو آه، شعمر فوتيو معنى سو maalaga qabna nasuhu yakhalnakum maana tagsi baan goog yakbangog أنا لو shacmar futi waqtiye رماح ننو من قبائه الإنكار على الأولياء انا المنكرين مقتفون آثار اليهود والمشركين والمنافقين فلا شك أن الله تعالى يعاقبهم مثل ما عاقبهم بهم لاتزافهم بصفاتهم إلى آخره E, saaxibu rima daal nee na min qabail inkaar bokk na ci mbon mbonuk ak kontr ak widdi qabail jamu qab qubxu kooku mooy ak mbon bokk na ci mbonuk contre mbonuk widdi al awliya ci walu yàlla nga nag amina anal munkirina nag ñi nga xam ne ñooy contre kat yi ñooñu muqtafuuna ñuy topp lañ asaral yahud njeexital yahud yi muy juif yi wal mushrikin ak mushrik yi wal munafiqin ak nafiq yi mi ne contrekat yi daal ñoom dañuy topp li nga xam ne mooy njeex njeexital yahud yi ak mushrikin yi ak munafiq yi loolu moo tax na contre day waar mi ne fala shakk amul sikk ne an allah taala naka yàlla mu kay mi yuaqibahum dana mu mbugal leen ñoom ñan ñoom contrekat yi a ah, amul sikki ne yàlla dina leen mbugal misla lu tolloo nii wala kémuk maa la nga xam ne a boobu mbugal na ko yahud yi ak nasaraan yi ah, ak mushrikin yi ak munafiq yi moo ana cause bi tax yàlla di leen di mbugal ndaxte yàlla ku mandul mi ne li tisaafi ngir melo gi giñ meloo ñoom contrekat yi topp asar yahudi ak mushrikin ak nafiq yi e, e, seen melokaan loolu moo tax e, lu toll ni li mu mbugal yahudi yi ak mushrikin yi ak nafiq yi lu mel noon la leen di mbugal la lay wax ne min qabail inkaar bokk ci mbonuk ak contre alal awliya ci wàllu yàlla yi أن المنكرين نكوي ودي دا المقطفون ويكنكلن ويطبلن أثار اليهود نيغت اليهود والمشركين أك مشركين أك ويدي والمنافقين أك نافقين mi na fala shakka amul benn sikk ne an allah nako yàlla taa taala makkoo mi yoo àqibum dina mu mbugal leen ñoom ak munkiriin yi bi misla kemmaa la nga xam ne àqabu mbugal na ko yahud yi ak mushrikiin yi ak naafiq yi bii ci moom littisaafihim ngir meloo ñoom munkiroon yi bi ci melokaan yahud yi ak mushrikiin yi ak naafiq loolu mooy cause bi tax yàlla di leen mbugal kem lu mu mbugal yahud yi ak mushrikiin yi ak naafiq mi ne min ha bokk na ci mbonuk ak contre ak mooy ne mu weddikat yi ñoom isaarum dañu tànn sohbatul fisqa wal alfajira min al osaati al muxaalifina al muaanidin ñoom dañuy tànn kàndoog fasiq wi te boo demoon ci al akdar yi daan la wax ne jaasu daganu te xaraam ne ci mukallaf yi muy ak ki nga xam ne mooy aji génn topp mooy fasiq woo xam ne dafay def bakkaar yi magi te du ko loolo e loolu daganu toon ci mukallaf wante ñoom kontrekat yi dañuy tànn ànd ak fasiq yi e nga xam ne kàccoor la e ñi nga xam ne dañu mooy yàlla al muxaalifin ñi nga xam ne dañu wuuteeg ndigal ak yàlla subhaanahu wa taala al muanid ñi nga xam ne way dëng lañ bokk na ci mbonu contre daal nii lemel moo tamit wu min a bokk na ci qabail inkaar idaaru mooy tànn gi ñu tànn ñoom euh, contrekat yi soxbatul fisqa mooy ànd ak euh, aji gën a topp alfajri ki nga xam ne kàccoor la min al min al usaati ci moykat yi almuxaalifin ñi nga xam ne way wóotee lañ ak ndigal ak yàlla euh, almuanidin ñi nga xam ne way dëng lañ min wa min a bokk na ci mbonok ak contre ak weddi annahum naka ñoom yaquulan dañuy wax ñoom contrekat yi daal foo leen fekk lii li ñu wax te lu day war la إن الذي عليه الملوك وظلمته وأعوانه هو الدين القيم والصراط المستقيم يوم دعال الوقت ji bon ji la ñuy wax wa ma alayhi ulamaau l axirati walkirami albararati alladina yadcuuna الطريق المعوج السقيم ويزعمون أن ما عليه أهل العوائد الزميمة والبدع القبيحة التي توارثها من كان في الضلال القديم هو الذي عليه rasul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga lii mooy doy ak ak mbon maintenant ak contre kat yi daal ñoom li ñu wax daal mooy ne annahum naka ñoom yaquluna nañu wax inna alladina naka li nga xam ne ali aji nekk la ci almuluku buur yi wa zulmata ak tooñkat yi wa awaano ak ñu leen di dimbale ci li ñu nekk woo moom ad diinul qayim wa siraatul mustaqim xam nga liy jubut de eh, ak tooñkat yi ak ñi leen di dimbale ñom contre dañu wax ni ñom ci li ñu nekk lool moy dinul qayyim moy yoonu siratul mustaqim moy yoonu jubbi bi waxuñ dëgg waxuñ dëgg nak mo tamina annum nak ñom yaqul dañu wax ni innal allazi naka li nga xamné alay aji nekk la ci muluk buri wa zulmatu ak tooñkat yi wa awaana ak ñu leen dimbale ci lañ nekk wo lolu ad diinu mooy diina qayyim ba di jub wa siraat mooy yoon almustaqim ba di jub ñu ne ko ñu baax ñu na ci liñ nekk lan la déglul mooy contraire bi wa maa la nga xam ne ali nekk na ci yow alimaawul axirati borom xam-xami àllaaxira yi ñi nga xam ne dund nañu àddina soxla wuñ dara ci àllaaxira wal kiraam ak ñu baax ñi albarara ñu baax ñi allazina ñaa ñi nga xam ne yeddoona dañu woote rabbum seen borom bil xadaati ci xëy wala ashiya ak ngoon yuriduna nammuwuñ lu dul wax wu cilmaay yàlla jëmm yàlla woo loolu attariq mooy yoon al muawijo balaa ji dëng asaqim balaa ji feebar nag ñoom ñi ne ulama ul ak ñu tedd ñi ñu baax ñi ñi nga xam ne dañuy ñaan seen borom eh, ci suba ak ci ngoon te nam wuñ ci lu du jëmm yàlla ji ñoom ñoo nekk ci yoon wo xam ne wu dëng la wu feebar la ma ne wax ji xam nga ne jubut baaxut wante contre kat yi nekk gi ñu nekk ci lu bon moo war lii di feeñ ci ñoom mi ne waye sax mënu ñuy njortu annama naka la nga xam ne ali nekk na ja ëllul awaadi ñooñ ak ñooñ ak dëng azamima dëng gi nga xam ne bu ñu ŋàññi la wal bidii ak sos bidaa woo xam ne xabiixa wu bon la alliti wa nga xam ne tawaarata doon nañ ko man ña nga xam ne kaane nekkoon nañ foog dalaal ci ndëngite ci réer alqadim wu yàgg woow loolu allati mooy li nga xam ne ali nekk na ja rasulullah yenente yàlla bi wa xisbu ak sahabaam asamim ña daaje sax ci ak njub ñoom daal ñu njort ne ñu ñooñu ko awaay ñu dëng ñi dëng wi nga xam ne wu ñu ŋàññi la ak bidaa wu bon wi nga xam ne ñu ngi ko donnee ci ñi nga xam ne ñu réeroon lañ jiitu te gi yàgg loolu mooy li yenent bi nekkoon ak saabam xam nga wax ji baaxut jub wax tamit waaye sax ñu ngi njort an an na maa naka la xam ne xale na ci loolu ñuy ñi ñi ŋàññi la wal bidaa ak bidaa ak alqabia bu bon alliti ba nga xam ne tawaara saa doon nañ ko man ñi nga xam ne kaana nekk nañ fi dalal ci ndëng ci réer alqadim wu yàgg woo moom wu jiitu woo moom allisi mooy li nga xam ne ali nekk na ci rasulullahi ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wa xisbu ak kuréeram ak saabaam yi assamim ñadaa ji sax ci ak njub min wa min Cheikh Omar may nettali إيه، معناها عمر من قبل سيرة ننكي التبحر في علمي الشريعة والحقيقة والتبريز فيهما أتم التبريز شي عمر ما يخ نينا بوكنا كي مونك أك كونتر من الدال العضال الذي آه، صد يهود عن اتباع سيد الوجود صلى الله عليه وسلم wadamina من mina bokkani ci mbon ak contre dal moy addaw moy jangoro jo xamna al médecin yi bu ñu aloo daal mooy jàngoro woo xam ne aji gàllankoor la gàll jàngoro woo xam ne dégg nga aji të mboolem ati mboolem médecin yi yëpp mooy bada aji e, të médecin yi alladi yi nga xam ne sadda gàllankoor na al yahud yahudi an ittiba walis ñuy topp sayyidul wujud sallallahu alayhi sallam muy jàng jàngoro wu yàgg na te di diri ak simbanam bee suñu jamono tey le moo tamit wu min bokk na ci mbonok ak kontur adda u mooy jàngor al oddaal badaa ji te médecin yi àlli si jàngir wi nga xam ne sadda gàllankoor na al yahud yahud yi an itibaawu la ñuy topp sayyidul wujuud sang mbindeef fi sallallahu alayhi wa sallam te kooku mooy yenent bi li xaw fi ngir ragal gi ñu ragal ak rot e, riasatihim seen ak njiit te woo moom alxasadu moo de keñaan e addaawu addaal woowu mooy keñaan te dara waralu ko lu si gàllankoor gi ma gàllankoor yi wër wala suñuy topp yonent ngi dañuy ragal ne buñ ko toppee seeni palte yi amoon dinañ ko dina esek dinañ ko ñàkk waaye ay buur dal di wax ci suuratu Nisaa ay 54 am yaxsaduuna naasa ala ma aataahum allahu min fadli buur ne am yaxsaduna ndaxte ñoo añaane annaasa nit ñi ala ma ci li nga xam ne aataahum jox na leen ko allah yàlla min fadli ci njub waay waay ndax doomi aadama yi dañu keñaane li nga xam ne yàlla moo ko jox mbindee famille ci ngëneelam ndax dañu añaane loolu e mënuñ ci dara buur ne am yaxsadu ndax dañu añaane annaas nit ñi ala maa ci leen xam ne ataawum jox na leen ko allah yàlla min fadli ci njuum doomi aadama lu mënta am yàlla ko ko may boo ne du fi am yaay sonn rek wante terewul yàlla jox na ko loolu tamit ne surat nisa ay cinquante quatre boore ngi waxaat feneen suratu Ali Imran aya vingt-trois wante lu gën a doy waar ci jàngoro ne kii li ma am du ko fi amee te mayut ko boppam man yaay sonn wante du tere mukk mayam gi di may rek boor ne alam tara ila lazina uutu nasiban alam tara xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñaar ñi nga xam ne uutu jox nañ leen nasiba ak cër boor ne giso gisoo loolu anaam ah, gis nañ ko ah moo leen cheikh ne ta amal settantalal وعي ستنت الكلام واخوك هذا القطب بلا على الفوتيو كان آه، الشيخ عمر تولنا مقام عنية آه، من هذا القطب بلا على الفوتي من الأقطاب نحن من بوك قطبي الفوتي كي كجك فوتي من الجليل كم مجا المقدار شي درجة تراو دنجي جيس إيه، لي موخ وهم جيبو كسلتل دنجي جيس دال كشف ويني جمي ويني أحوال المنكرين إيه، بيروك نيجا قمنا يكونتر كجي نجاحنا الله من بلوى يعني يلا مسل نيجي سنة أكن نتوغو غلي يعني يلا مسل نيجي آه، واحد جيخنا لم دون تغل شي رماح من انتهى جيخنا من هو في البحر المورود أجي نكل جاء البحر المورود بين الدير لو قمنا هو عم صلل ما عن لفنك مولانا شيخ مولاي اندي الواحد جو خامني اجي نيك لي ليفر بو البحر المورود نينا اخذ علينا اليهود ان لا نكذب الصالحين اذا اخبرونا بشيء تحيله عقولنا الا اذا عرض نصا شرعيا وذلك لان غايه الواحد منهم ان يخبرنا ان القدره الهيه فعلا ممكنا لا غير كوكو نيوتي على البحر المورود Eh, nee na daal axasa jàpp na ali naa si ñun yàlla jàpp na si ñun ana lu mu jàpp si ñun mi na al uhud kollëre kollëre gi may leen nu kasib bu fen lo bu ñu fen lo bu ñu weddi yi kañ ida axbaruna ndéem xibaaral na ñu bi suñ ci lëf goo xam ne tuxiilu góog dana ko daganale oqulu naa suñu xel bu fekkee ne saalihiina yi dañuy informé wax joo xam ne suñu xel nangu na ko mi ne ah yàlla kollërante na ñun bu weddi wax joojile illaa lu dina isa arda ndéem contrainte na gaar na gàllankoor na nastan yàq woo xam na chariyan woo ko jox charia bu fekkee li ñu wax du alquran dëppoo da alquran dëppoo da sunna sañ nañ koy ak weddi wante bu fekkee na sunu xel daga na la loolu nangu na ko kooku nag eh, yàlla kolorante ñun ñu ñàkk koy ak weddi mi ne wa zalik loolu li anna gaayatal waxid naka doye kenn mi ne ci ñoom an yuxbirna mooy ñu xibaar nañ anal qudrata naka kattan ilay yooyu ko jóg yàlla faalat def na mumkinan di aji jàppandal la xiir déet keneen faalat dafay def mumkinan la ka jàppandal te la xiir déet keneen nag noppi na ci wax jooju nee na wafil yawaqit wal jawahir li shaarani wa demee ci lifur al yawaqit wal jawahir بو امام الشعراني مغي وخني قال وخنا قال شيخ الاسلام المغزومي لا يجوز لعالم يعني ينكر على صوفي الا ان سلك طريقهم وراهم غالفوا السنه ولا يسوق له الانكار عليهم حتى يعرف سبعين امرا نينا بوتيمكي ليبرو نيو اليواقيت والجواهر وامام الشعراني قال مغي وخ mooy imaam Sha'rani mu indi waxu alim woowu di cheikhul islam al-Makhzumi cheikhul islam al-Makhzumi nee dagan li alimi ñeel eh, borom xam-xam eh, an yin muy critiquer muy contre ala suufi ci benn suufi eh, cheikhul islam Makhzumi nee na daal jaasu daganu ci benn alim muy contre di weddi benn soufisme illaa lu dul in salaka mu sóoba mu seen yoon aw mu gis ne ñii kat ñii tuddee a soufisme xaalafu wóote nañ a sunna sun su ko defee ne boobaa mën na leen di contre wante daal daganu ci alim mu toog rek di contre soufisme loolu soobu ne seen yoon gis na daal wóote na ñoom soufisme yi ak sunna boobaa na walaa yesuqu Euh, du dagan la wu ñeel ko inkaar contre ali ñoom mi ne walaa du dagan ba léegi ci borom xam-xam la wu ñeel ko al inkaar muy contre ali si soufisme yi xataa yaari fatu mu xam sabiina amran juróom ñaar fukki buntu xam-xam ah ma ne ko du lu yomb inkaar du lu yomb weddi du lu yomb kooku cheikhul islam Maxzumi moo ko wax nee na daal ci benn borom xam-xam muy critiquer contre benn soufisme lu dul mu soobo seen yoon te loo may dëgg sax doomi aadama balaa ngay wéete da ngay xam wante nit wax te xamoo li muy wax nga daal di koy contre ma ne loolu mooy ñeme yàlla rek wante daal bu sooba seen yoon gis na daal soufisme yi wóote nañ a sunna kon nag jaas na dagan na ci moom mu dal di contre te chapitre bi waxoon na la moo la cheikh ne danaa la jàngal ci wëttandikuloo ku an turu ñu ñu xusuusiya wante jaas na dagan dinaa la wax tamit ci ñi nga xam ne dagan na ñu ko an tur leen mi ne du dagan la wu ñeel ko al inkaaru contre alayhim ci ñoom xataa yarif ba tuma xam sabiina amran juróom ñaar fukki buntu xam-xam maanaam kaw tiif e, bu fekkee na da ngaa jàng mel na buntu rek ku wax nga weddi ko maanaam yow ku doy waar nga من بوك من بوك من ليت سيتلنا لين تي 70 امراض يوي وانت من لا تدل يب من معرفة اصطلاعيم في التجلي الذات والصور بنغوك ومع الذات وذات الذات ومعرفة حضرات الأسماء والصفات والفرق بين الحضرات والفرق بين الأحدية والواحدية ومعرفة سر الزحور والبطون والأزل والأبد وعالم الغيب وعلم الغيب والكون والشهادة والشوق وعلم الماحية والهوية والسكر والمحبة ومن هو الصادق في السكر حتى يسامح والكاذب حتى يأخذ وغيره آه، أجينا يدي نعم نعبوك نسي جرم نعرف كمبيري موي معرفة موي قم استلاحي مسنيونو موي قم استلاحي سوفيزمي يوخينت آه، قم سنيونو في تجل الزات تجل الزات ba ñu tëjëli saat mooy tëjëli woo xam ne dafa biiru wa suuri ak tëjëli suur mooy tëjëli woo xam ne dafa fiiñ mu jéem koy xam wante bu fekkee xamul lan mooy tëjëli saat ak tëjëli suur yi eh, ne dina wét dina waxi soufisme maanaam eh, loolu lu doy waar la wa ma ak la nga xam ne woo moom a mooy zaat mu jéem a xam luy zaat wa zaat zaat mu jéem a xam ana lan mooy jëmmi jëmm ji ana liy jëmm ji ana liy jëmmi jëmm ji mu jéem koy xam من أول معرفة مقام حضرات الأسماء بي ترجي وصفات أك بي ملي مقامكو والفرق مجيمة تقل بين الحضرات دي بي لن ما حضرة حضرة الحق حضرة النبوة حضرة الولاية حضرة القلافة حضرة القطبانية مجيمة قم تقل حضرات يوي أنا للموزن تقلي والفرق أك تقل بين الأحدية والواحدية daa de dafa am ahad yi am waaxid yi am mu jéem a xam lan mooy seen teqale seen farq wa maarifa ak xam sirru zuhur lan mooy mbootug wi feeñ wi wal butuun ak sirrul butuun wal azal ak lan mooy azal wal abad ak lan mooy abad mu jéem koy xam ndaxte mu ngi bokk ci sabiina amran juróom-ñaar fukki mbir yooyu la mu jéem a xam waa alamul xayba ana lan mooy péyu ko wu fàdd wi wal kaw na alamul kaw na mu xam ko والشهادة مقام علم الشهادة والشوق mu ji maqama alamu shawq yii yëpp war na mu xam ko moom eh, aji weddi ji balaa muy weddi wante mu xam wa ilmul maaiya ak eh, ilmul maaiya mooy bu ñu al ilmul maaiya mooy dëgg-dëgg xam-xam woowule mu xam ko wal huwiya mu xam ilmul huwiya wa sukr mu xam ak mandite wal mahaba mu xam ak mbëggeel yooyu yëpp war na koy xam wa man ak ka ka nga xam ne woo a as-saadiq mooy aji dëggu fi sukk ci mand ci mandi koo xam ne dafay woote ak mandi bu mandi mu jéem a xam ana ndax dëggu na ci mandem gi wala dëggut ci xataa sa xataa yu saamiha bañ nangul ko mandi mandi teem goo gulee sàngara mandi gu mu mandi ci pay yàlla bi bu fekkee dëggu na mu jéem a xam naka lay dëggoo moom aji mandi sàngara ci pay yàlla bi ñu nangul ko lool wal kaas ak ki nga xam ne aji fen la ci woote ne mandi na ci pay yàlla te fekk mandi ci xataa yu àq sa bañ jàpp ba jàpp waxiiru ak yeneen yu dut eh, juróom-ñaar fukki xam-xam yooyu la wala ak yeneen yu dut yii mu tuddal kon daal loolay wax ni wala yasuqu euh, du dagan la wuñeel ko al inkaar muy kiriti muy contre al injeen ka waxta yarbatu mu xam sabiina amran juróom-ñaar fukki mbir mina bokk na ñaar fukki mbir yooyu maarifata mooy xam istilaahim seeni yoonu fi tëjëli zaati ci tëjëlu zaati wa suuri ak tëjëlu suur wa maag la xam ne huma zaatu wa zaati zaat ak lan lan mooy jëmmi jëmmi ومعرفة أقم حضرات الأسماء أن لن بيكتوري وصفات الملك بي ملي والفرق مجيما قملا ما يتقل بين الحضرات ديجن بي والفرق أكتقل بين الأحدية أنا لن أحدية والواحدية وهو معرفة أقم سر الزحور أنا لن يمبوت وفيني والبطون أكمور ونبو مجيما قم والأزل أنا لن أزل والأبد أنا لن أبد وعالم الغيب أنا لن بيو فدوي wal kaw na ak alamu kawn wi univers u nekkin wi wa shahada ka univers u jano wi wa shawq ak cofeel wa ilmun mahiya ak xam-xamu mahiya wala huwiya ak huwiya wa sukkur ak mandite wal mahaba ak mbëggeel wa man ak kan kan wa moom asaariq fi sukkur ci mandi mu jéem a xàmmee loolu ba ku oote ne dafa mandi moo xam ndax dëggu na ci mandi googu bañ nangul ko xam déet xataa isaame bañ nangul ko ko wal kaasib ak aji fen di oote ne ak mandi na ci sangara ak pay yàlla bi fekk dafay fen xataa yoo àqisa bañ jàpp waxee ak yeneen yi يي من واحد يجي نينا وقال وانا الشيخ سرين الامام كي المعن والقدوة كي رواي الامام كي يقمنا سنجل الشيخ سيدي مختار كنتي مو عنا كيمي وخنان مو الشيخ الامام والقدوة الامام إذا ما قالنا الشيخ دسال المكن إيه كن تجبرم كم قمي نينا دال Eh, a cheikh Seydi Muxtaar Kunti kooku lay wax ne mooy sëriñ bi mooy ilimaan yu mooy roy waay mooy sang bi eh, wax na moom radiyallahu anhu nag yàlla gërëm mu nga xam ne lu wax kama fi tasil kam nu mu ñëwee ci mbiccam ma tasil buñ ko waxee mooy koo xam ne daal taalif na téere def tasil mooy yokk ci ak mbicci loolu la ñuy wax tasil mu nga xam ne lu wax nee na waqaal woon al qutb qutb diin ashirani ah الشيرازي رضي الله عنه لولو شيخ الامام والقدوة الامام الشيخ زيد المعتار كنتي موي كيكو واحد تي تسجيل موي لي مدون نيتالي ني ني داغانو آه، بن بورون خام خام موي كونتر سوفيزمي لو مو خام جوروم ñaar فكي مير موي جوروم ñaar فكي بون خام خام مو تي لن مينا واخ جي ما واخ نات بو ديمي تي الشيخ الامام والقدوة الامام الشيخ زيد المعتار كنتي موي كوكو اندي تي آه، تسجيلم وولي لأنه قالوا عن قطب الدين الشيرازي قطب الدين الشيرازي رضي الله عنه وخنا مو عن الوقت لأن اعلم أن إنكار العوام على القواص لا يقضه في مناصبهم كما لا يقضه في رسالة الأنبياء نسبة بعض الناس لهم إلى السحر والجنون وغير ذلك قطب الدين الشيرازي أو الشيرازي رضي الله عنه مو عن الوقت نيني اعلم قمل يوندنغي انا قمل يومي قمنا يعي دقل درسي يومي قمنا يعي مطالع كاشف الالباز عن فيدرة القدم يا العباس ان انكار الاعوام نك كنتر ني قمنا عاملين قمين دار على القواس ني قمنا نيو نيو نك جدلي لا يقضوا دو واني في مناسب الزن درجية دو جي واني در در من عام يبو فكي نيو كنتر خواس ني قمنا يلا دفلين جدلي دار من وانت كريتك و كنتر وو واني وسن درجية توس كما كم نيغا كامي لا يقد دواني في رساله الانبياء تشي ليتر بروفيدي نسبة أسكني جي أسكني بعد الناس لين تشي ني لوم إلى سحر جم تنجبر والجنون أكدف وغير ذلك أك ينين يوي أه، كم نيغا كاميني لين تشي دومي آدمي أسكني نين بروفيدي نيني كان جبر كلين نيكت ñuy daan ak jinn ak yeneen yi yooyu comme ni nga xamee ne du wàññi ci seen risaala ka anbiya yi du wàññi si seen risaala yi dara noonu tey awaam yi bu ñuy contre ñooñu xawaas yi ah, kooku du wàññi seen daraja yi dara loolu lay xutbu diin Ashirazi di wax nii ne ni alam xamal an na inkaara am nag contre contre kat yi ñi nga xam ne am lañ على القوات اللي قمنا نيوين نيو نيك جغليل كوغل اي قدو دواني في مناصب سين درجه يوي كما كم نيغا خمين لا يقدو دواني في رساله الانبياء تي ليترك بروفيتي نسبه اسكني غي اسكني بعض الناس لين تي نيغي لو نيل لين الى سير جم تي نجبر والجنون اك صدم جن وغير ذلك غي دي كوكو قطب الدين الشيرازي مكي من قالوا أنا سهل ابن سهل ابن عبد الله التستري إيه مو عن المخ سهل ابن عبد الله التستري نين من رأيتموه يزدري بالأولياء وينكر مواحب الأصفياء فاعلموا أنه محارب لله ورسوله إيه نين نين كيف قمنا جزنين كو نين صالح بن عبد الله تستري نين كبقوا قمنا جزنين يصدري ميقيب أولي عيتين قمنا نيوي ولي ويلي كرني كرتك دي ود مواعب الأصفية mayu ko ñi nga xam ne ñu ñu sell leen te tànn leen waaye waaye xam leen ne kooku ngeen gis muy xeebu ba yi di weddi mayu ko asfiyaa yi faalamu xam leen ne annaw nag moom muhaaribun aji déclaré la ak guerre lillaahi ñeel la wa rasuli ak yeneen tub ndax de yeneen tubi yàlla moo wax ci adil qudsi man aada lii waliyan faqad aadantu bil harb kon na Sahl Abdullah Tastari nee na képp koo xam ne gis ngeen ko daal muy xeeb awliyaa yi wala muy weddi seen mayuk asfiyaa ñi nga xam ne ñu yàlla tànn leen te sellal leen waaye xam leen ne ko daal aji déclaré la ak guerre ñeel yàlla ak yeneen toom loolu wax na qaal wax na sahlu saali ibnu abdullah at tastari nee man képp koo xam ne raaytumuhu gis ngeen ko يزدريم يقيب بالأولياء أولياء وينقرم يود مواحب الأصفياء ما يغني سلني فعلموا قملين ينقاي أنه نكو كوكدي محاربون أجي دكل أغير لله ورسول أجي نينا وقالوا أنا أبو يزيد أبو يزيد رحمه الله مو على أبو يزيد وق نينا إذا ألف القلب الإعراض عن الله صحبة الوقيعة في أولياء الله <clears throat> أبو يزيد البسطامي نين إذا ألفن دي مين القلب قلبي قلي دو معدم يدال بمين الإعراض ضد دموي يعني لايك يلا قلب فك دف مين دموي يلا أنك عليك من الزعبة عندك موم قلو والوقع دل كونتر تبي في أولياء الله كي دركو واللي يلا mi xol boo xam ne daal miin na dëddu yàlla du mooy ak yàlla mi na xol woowu buy ak du mooy rek gis nga alwaqe lu may li ñuy wax alwaqe muy dal ci euh, wëliwu yàlla yi ak di leen di jëw di leen di critiquer euh, loolu mooy àndaale xol woowule yéen yàlla musal ñi ci xol woo xam ne dafay miin ak du mooy yàlla ndaxte xol wu du mooy yàlla moom foo nu mucc na alwaqiatu fi awliyaa illaahi rek mooy nekk kandaayam mooy nekk kandandooram إيه؟ أبو يزيد البسطامي ما يوقف ليك نين وقالوا أنا أبو يزيد البسطامي رحمه الله لأن لحوم الأولياء مزمومة وعادة الله في مبغضهم معلومة فمن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب أبو يزيد البسطامي ما يوقف نين لحوم الأولياء يبو ولو يلي مصمومة لنتوكلها a ah, li ñu poisonné la li euh, euh, def ak poisonné la ba boo ci saxee wala nga nekk ci ret poisonné woo foo mu jàpp la mi ne waaye xam leen lu luxumul awliya masmuuma mi ne wa aadatullahi noon ak yàlla fii ci ñi nga xam ne euh, ñooy aji mbañ ñi nga xam ne ñooy sufisme lu ñu xam la من وعدة الله باخو يلا إيه، قول موي عدا موي باخو يلا في مبغضهم كي يقمنا وي بلين ولو يلا كوكو معلومة لين قمنا باخو يلا كي يقمنا وي بلين اكو اولياء الله نيوني دي قمنا باخو يلا كي نيوم موي يلا دكلار غير اك نيوم سرلين يرمال لور موي باخو يلا كي يقمنا نيوي اجي بلين اولياء الله ما تمينا وقالوا أنا أبو يزيد أبو يزيد لحم الأولياء yàpp walu yàlla yi daal mas mu matu lu ñu tokk la wa aadatullahi baaxu yàlla fi mubxidihim ci euh, way bañ euh, awliyaullahi kooku maalumatu luñ xam la fa man atlaqa képp ku boyel na képp koo xam ne dafa boyel lisaanuk làmmiñam mooy mu euh, boyel ak làmmiñam mooy kuy képp koo xam ne kuy tàllal ak làmmiñam la Eh, fihim ci awliyaullaahi bi salabin ci wax lu dul noonu kooku ibtilaaw nattu ga allah yàlla xam ne mawti njëkk dee bi mawtal qalbi ci dee xol nee na képp koo xam ne tàlla na daal ci awliyaullaahi ci wax di leen ŋàññi dina ko nattoo njëkk muy dee ana lu ko yàlla di nattoo mooy dee xol kooku alquran yaxal na سورة النور أي 63 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم boorna fal yaxdari na wattanduko allazina ñaa ñi nga xam ne yu xaalifuna dañu wuute an amri ci ndigal yàlla an tusibam ba jot leen fitnatun fitna aw yusibam wala ba jot leen azabun bugal alim ba daaji daat ba daaji métti waaye boor ne na wattanduko ñaa ñi nga xam ne dañu wuute mbiruk yàlla te képp ko xam ne aji noonu la ak waliyu yàlla kooku mu ngi wuuteeg ndigalu yàlla ndaxte yàlla moo ne képp ku noonaa sama waliyu kooku déclaré naa la guerre boor ne képp koo xam ne daal wëttandiku wuteeg mbiru yàlla kooku daal ñaari fow benn dina am bu ko ci dal mooy fitna wala ak mbugal mu métti boor ko na fal yaxdari na wëttandiku allazina ñaar ñi nga xam ne nañ wëttandiku ah, yu xaalifun wuute an amri ci ndigal yàlla mu am na lu ñu wattandiku an فتنة ba jot leen fitna fitna aw yusibu wala ba jot leen azab mbugal alim bi da aji mét kooku ay 63 من وقال عن الشيخ ابو عبد الله الغرشي كو ما يوخ مو انا لما يوخ نينا من قضى عن ولي عن ولي لله عز وجل ضرب بسحم مزموم في قلبي ولم يمت حتى تفسد عقيدته الشيخ أبو عبد الله الغرشي nee na man xadda képp ko dummooyi na an waliyin ci ak wali lillaahi ñeel yàlla maanaa képp koo xam ne aji noona la ak wali ah di dal ci ak kawam joxu ko respecté kooku duriba saddeef dóoréef bi saamin ci fett masmumum wala bu ñu poisonné wuñ tooke fi xal bi ci xolam dafa mel ni dañuy jël fett woo xam ne dañ ko poisonné ba mu saf-sapp na ñu dal di koy dóor ci xolam wala ñamu duddee xataa tufsida bañu bata mu yàqu aqidatuhu pas-pasam وولي من وقال وانا الغزالي امام الغزالي رحمه الله امام الغزالي نينا من لم يكن كيب كون نيكوت لو ديكو نيال نصيب اكثر من علم القوم تي قم قم جاي كوك يقاف دفني رجل علي تي موم سوء الخاتمه مج نياو امام الغزالي دال نينا كيب وقم دال امود بن تير تي قم قم جاي كوكو رجل اف نين تي موم اك مج نياو ولله بالله nee na wa adnaa nasibu minhu gën saa suufe ci ak cër ci eh, awliyaawullahi mooy at tasdiq bi wa taslimu li ahli mooy daal at tasdiq mooy dëggal bi ci wàllu yàlla wa taslimu ak jébbalu li ahli ñeel seen ñooñ loolu mooy cër wu gën a suufe ci soufisme yi ak awliyaawullahi mooy at tasdiq bi wa taslimu li ahli wa qaala wax na azim مو إمام غزالي مو وغبليقني إنما إنما انقطع الأبدال في أطراف الأرض والزطر عن أعين الجمهور لأنهم لا يطلقون نظر إلى علماء الوقت لأنهم عندهم جاهلون عندهم جاهلون بالله وهم عند أنفسهم علماء فرأوا الإعراض عن الجاهليين من أغلاق المؤمنين امتثالا لقول الله تعالى وأعرض عن الجاهلين كوكو أعرف ay cent quatre-vingt-dix-neuf imaam Xasaali mooy wax ni wala yi nga wala yàlla yi nga xam ne yàlla may na leen ba ñu yegg ci maqama abdal la ñoom de dog nañ ci petug suuf nëbbatu gëttug ñi nga xam ne ñooy mbooloo mi mu ane cause bi tax ñuy def loolu ngir ñu bañ a boyal seen i gis jëm ci ulamaa waxtu yi ndaxte ulamaa waxtu ñoom dañuy wax ni eh, ñii di awliyaa yi eh, ba yegg ci maqaamal abdaal ñoom way réere lañ yàlla ulamaa waxtu yi loolu lañ wax ci ñoom ne ñoom ñooy ñu xam eh, te gis ah, ak ñoom gis nañ ne dëddu jaahiliina yi ah, loolu ngi bokk ci jikko way gemi ngir alquran lim wax nan dëddu ñi nga xamne ne way réeri bo loolu imaam qazani inma xamal in qata dogna al abdal abdali fi atraf al ardi ci péti wastaru wastataru nañ an اعين الجمهور walis غتو كا مبولومي mbooloo mi la anam ndax te ñoom laa yutalliquuna duñu boyal an nazar gët ila ulama قمي جامنا جي ci borom xam-xam yi jamono عندهم فنيوم جاهلون ويرير لن بالله جل نيوم نين عبدال جاهلون لن بالله وهم نيوم ما الوقت نيوم يعني أنفسهم فصل بوب على ما نيوم برم قم قم نيوم نيوم قم فراو جس نيو عبدالي دالني الإعراج دموي إيه، عن الجاهلين جوي ريري من أغلاق المؤمنين من بوكتي جكو ني قمنا وي جملن امتسال نير جفندكو لقوله تعالى وخبرم بي بمي وخنان وعارد عن الجاهلين دموي ني قمنا وي رير لن سورة الأعراف أي سان كترون ديزنو لولي بورد وخ من وذكرت لنا النبي إمام النبي أنه نكمهم يا رومدنا حرام ما على كل عقل جيكيب وقمنا اي قلولة ان يزيع منيا وظنوا انجرتم بأولياء كي أولياوي إيه إمام النووي مم دال جسنا ني حرام نتي كيب وقمنا اي قلولة اعلم مولو عرام تل موم موي منيا والاك انجرتم جي أولياء الله كوكي إمام آه، النووي من المحدثين من بوكي جنيا قمنا موي علماء الحديث kooku la wax nee na daal xaram na ci képp koo xam ne borom xel nga muy ñaawal njortoom ci aw lu yàlla la nga ne ko ak kon nag lu mu war a def mi ne bal li fi nekk kañ mooy yejibu dina war ali ci moom tawilu ak waali mooy muy jéem muy tawil seen wax waa faale ak seen jëf maalam yalxaq bi feeg ajuwut biim ci ñoom mooy sharabu muy naan min mashaari bi seen naan seen naan waay mi ne daal li war ci ki nga xam ne ko am xel la mooy bu déggee waxu awliyaaw yi mu taawil ko eh, taawil seen jëf feeg wut ci ñoom dal di naan lu muy naan bu fekkee ne aji na ci ñoom dal di naan li awliyaaw di naan kon nag saññaa ak critiquer wala weddi bu fekkee ne ñoom seen wax dafa wuute ak sunna loolu mooy wax waaw tamit wa zakartu dina annawe imaam nawe annawu naka moom yaxarum dina xaraam ala kulli aqlin ci képp koo xam ne borom xel la an yusi am mu ñaawal zannu njortam bi awliyaa illahi ci waliyu yàlla ba li fi nekk daal yijib dina war ale ci moom ta'wilu aqwalihim mooy ta'wil seen wax ñoom awliyaa illahi wa afaalihim ak seen ak seen jëf maalam yalxaq feeg bi ci ñoom wa yashrabu muy naan min masharibim seen naan waay mi nag eh, noppi na ci loolu nee na waqaale wax na a cheikh badruddin azarkashi kooku may wax عن الأمور لأن لا تسمع فتوى شخص في القوم إلا بعد تحقيقه لاصطلاحاتهم ومعرفته لحقائق ألفاظهم كما لا تسمع فتوى الأصولي والنحوي في الفقه تقليدا له إلا بعد عرضه على حقائق الكتاب والسنة ومعرفته بأصول الفقه لعدم إحاطته وإتقانه لذلك إذا علم النحو والأصولي إنما هو آلة لتحقيق الفقه بنفسه لا أنهما عينه فإن فعل فقد ضل وعدا kooku imam cheikh badruddin achark azarkashi mooy ki wax loolu nee na eh, mbokk mi la tes mi bul déglu bul déglu fatwa euh, shakhsin ubbeeg as cam as waay soo xam ne mu ngi def fatwa fi xaw men ci gars yi soufisme bul déglu waxam ji bul déglu fatwa mi dana ka abba faw mi ne illaa li baada taxqiqi gannaaw ak dëggug listilaaxaatihim gannaaw dëggoom ak yéwénoo ak istilaax ñi nga xam ne ñooy soufisme bu ko leere ne moom waa ji daal di fatwa ci gaa yi moom kat dëggu na istilaax ak yi xam na ko wa maarifati ak xamam li xaqaayiq alfaas alfaas yi ñuy tudd ah kon nag sañ nga koy déglu wante bu fekkee nag xam nga ne kii di fatwa lii moom amut benn taxaqiqa ci seen istilaha xamul tamit seen xaqaayiqa alfazim kon laa tasma bu ko déglu kama comme ni nga xamee ne laa tasma bul déglu fatwa usul fatwa borom xam-xamu usul wi ak borom xam-xam nax wi fil fiqi ci fiq a koog nan taqlil ngir roy la wu ñeel ko lu ci gannaaw bam gaarloo ci dëgg-dëgg yi ci alqaan ak sunna ak xam gi mu xam a usulul fiqi ngir ñàkk ak limtu ak peeg ak xereñe ñeel lool waxtu mi ne kama comme ni nga xamee laa tasma bul déglu fatwal usul mooy فتوى أكبر كم كم أصول ونحو أكبر كم كم النحو في الفقه يجي فقه تقريرا مروم معجري لو نيال كي لا بعد عرضي جنابهم قارلي على حقائق الكتاب جي دق دق تيري والسنة أك دق دق تيري كت القرآن والسنة أك سنة والنحو أك آه، ومعرفة أقام بأصول الفقه تي أصول الفقه لعدم إحاطة جنجر نيك نيك بيك ويتقان يقرني بذلك لذلك نيلول إذ نوع علم النحو كم كم النحو آه، والأصول قم كم أصول إنما قبله آل جندك لتحقيق فقه نجر دقل قم كم فقه لا ديت لا أنه ما ديت نيوم نيار موي علم النحو أك علم الأصول لا عينهم من يجمي قم كم فقه نينا فإن فعل بودفه لولو faqad dalla réer na waadala te euh, dina réer la eh, du yem ci réer wante en même temps dafay réeral ak keneen nag moo tamit fa in faala bu defee loolu faqad dalla sànq na waadala te di sànke wa kazalika nag noonu man koo xam ne laa maarifa di ta xam lawu ñeel ko bi istilaaxil qawmi ci jumu jumu jumu gaa yi muy istilaax gaa yi ak yiwinoo gaa yi فإننا كمهم إذا سمع بو دغي قولهم سن سنوخ من غير تحقيق تلود أك بن دغ أك دغ دغ تينا جبل واي ومعرفة فتوى إشارتهم أقم معنا سنك جنجو كوكو بوبا اتحمهم دينين تومان képp koo xam ne daal déglu na waxi soufisme yi waxi awliyaullahi dëgg-dëgg seen jubluwaay ak maanaam seen ishaara yooyu la euh, euh, moom dafay tuumaal ñooñu la ne ah seen wax ji kat nangam ak nangam la moo tamit ne fa inna wa kazalika nak noonu man koo xam ne laa maarifa di xam loolu ñeel ko bi istilaaxil qawmi ci jumuwoo gaa yi mooy istilaax ak gaa yi fay ne nag moom la iza samia bu déggee qawlahum seen wax rek ah min xëyri taxaqiqi ci lu ak benn dëgg ah dëggu li ma xaas ne seen jubluwaay wa maarifati ak xam faxwa isharatihim ak maanaam seen ishaara ittaxamoo mu tuumaal leen li annahu ndax tuumam idaa sama bu déggee qawlam seen wax xaqiqatu tawba bu déggee ñuy wax naan xaqiqatu tawba hiya at tawbatu min at tawba fa innahu yunkiru zalik bu déggee gars yi di wax naan dëgg-dëgg tuub daal mooy tuub min at tawbi ci tuub mooy tuub ci biir tuub ak tawbatu tuub mi na tawba ci tuub tuub ci tuub loolu mooy xaqiqatu tawba fa ne nag moom yéen kër dafay weddi saa rek loolu te xamul ne ah lu ñuy wax noonu xamul ko eh, bu fekkee nag xamul loolu rek dafa automatiquement dafay weddi ne ak ah, gars ñoom nee nañ eh, dëgg tuub daal mooy ki tuub ba pare tuubaat tuubam googule mu ne ak ah, xam nga ne wax jooju du dëgg eh, ndaxte dafa ñàkk xam li ñuy wax rek. nee na fa ida araf boo xamee ne adna muraadum nag seeni namm namm daal bi zaalika ci loolu mooy ittihaama anfusihim mooy dañu tuumaal seen bopp fi ixlaasi ci sellal ak tuub wa ru'yati ak gis tuub kon dafay dellu an inkaari walis ak witti bu gisee na daal la awliyaaw yi daal dañu tuumaa seen bopp ci sellal ak tuub ne ñoom kat mënuñ la seen ak tuub gisuñ ak tuub kon nag dafay delluwaat ci inkaar gi mu doon inkaar loolu le ndaxte lii mooy seen muraad seen na mu a mucc lool te du yem ci loolu mi ne wa asa mu màggal min saalik ci loolu xawlum seen wax ma dal di màggal seen wax joojul bokk na ci wax ji mooy arabbu abdun wala abdu rabbun mi ne arabbu rabbu yi abdun jaam la wala abdu jaam bi rabbu rabbu la xam nga bu fekkee dégg nañuy wax loolu te xamu ne rabbu du ne en même temps fu ñu waxee rabbu rek yàlla lay firi ndaxte boo dee sa sa la Muusa eh, Yuusuf ba ko doon wax ji wax naan boo demee sa borom nag eh, sa sang wa nag mu fa tudd faskur nii inda rabbika kon nag du woon ne rabbu foo ko déggee mooy firi ak yàlla mina rabbu kil dina firi kilifa kilifa min abdun jaam la wala abdu jaam bi léeg-léeg mu nekk rabbun kilifa nee na fa idaa samia boo déggee haza wax ji mu ne fa idaa samia boo déggee haza lii man koo xam ne la sooq déet ak guu déet ak mos lawu ñeel ko koo xam ne amul benn gu bu fekkee dégg na wax ji daal lu muy njëkk wax daal mooy ne amara dafay digal bi xatli qaayili ci rey aji wax ji kii nga xam ne dafay wax naan rabbu abdun wala abdu rabbu daf koy digal ne nañ ko rey wa sab wa zabihi nañ ko rendi te xamul ne e, gars yi li ñu jublu seen wax ji lii la wa ida arafa ndéem xam na muraadum seen jubluwaay bi zalika ci loolu mooy an al abda naka jàmm bi ida basala ndéem julli na nafsu boppam li mawla ñeel boromam bu fekkee jaam bi simmi na boppam jox boromam wa fan yee mu jeex fi mardaate ci ngërmande gi yàlla وغاب فاد بشودي تي سيدو يلا نعم يعني شوري نفسي ولي سيدو اك بوبم قمد موم عمود ملكو موم لوكو ملك الانغور كبير مو مغ وجعل دف الامر مير بيد جي لوخم يلا دال دف نان مير ييب جي حتى اذا حتى انه بتموم اذا قال بوخي لشيء يلف كون نكل كان مو نكل تكوين غير نكك مكوين اجي نكل نكي دالمكو بيد هي مجي ام جرو وولي كما قال لكم نوغي شيخنا الجيلاني شيخنا الجيلي مشي عبد القادر الجيلي رضي الله عنه ومعمي فنا ونفوعنان وأمري بأمر الله إن قلت كن يكن وكل بأمر الله فاكم بقدرتي نين وأمري سما santaane bi amri laa aji nekkal ci santaane ak yàlla in qultu bu mu waxee kun nekkal yekkun mu daal di nekk mooy ne yulli na boppam ñeel boromam jeex ci ngir mànd ak yàlla ah, faddu ci eh, seedug yàlla wali seedoom yàlla dal di koy moom ak nguur gu màgg def mbir yi ci yoxoom ah si la sañu mën wax lii yàlla dal di def lool mu ne wakkul bépp mbir yëpp bi amri eh, laay aji nekk la santaan yàlla kon na faakum atteel bi xudari sama kattan kooku Cheikh Abdul Qadir Jilaani mooy ki wax loolu neena wa kaana nekkoon ne imaamul xaramayn ilimaanu ñaar xaram yi radiallahu anhu neena yaqul mi ngi wax naan law qiila lana fa sallu lana ma yaqtadi ما يقتضي التكفير ويؤدي إلى إلى التضليل عن عبارة القوم لقلنا هذا طمع في غير مطمع إمام الحرمين رضي الله عنه لأن لو قيل بني وقل لنا نيل فصلوا جلين لنا نيل bu fekkee ne waxeef na ñeel ñu ne julli leen ñeel ñu maa loo xam ne yaqatadi dafay waral ak takfir kéeféerloo nit ki way addi mu koy diri ila tadli jëm ci ak riir an ibaratul qawmi ci waxi gaa yi mi ne kon de la naa dañuy wax ne azali tamawun xemam téef la fii xëyri matmain ci ci ludul baramu barabu xemam téef mi ne ñun de bu fekkee ne waxeef nañu ñeel ñu ne a julli leen ñeel ñu waaye waaye ee eh, yéen doomi aadama julli leen ñeel ñii te xam nga ne julli yàlla rek lañ koy defal mais loo xam ne dafay waral ñi kiifarloo waa ji te dafay waral ak diri jëm ci ak réer ci waxu gaay yi mi ne ñun boobaa dinañ xam wax ji day wax ji dañu xam ne ki wax wax ji daal nii dafa xemam loo xam ne du wër xemamu kaayam ci barab xemamu xemamu kaay ndaxte julli leen ñeel ñu kooku yàlla rek lañ ko war a def ndaxte dafa xemam loo xam ne ci lu barabu xemamu yi ñi nag ñun wax ji nii lañ ko xamee ba duñu am benn jaaxle ci wax jooju mooy xam nañ mos nañ eh, yéeg nañ ci gaa yi te mos nañ seen naan waaye loolu moo tax ñu xam loolu ادمين لو قلب هو لا نيل فصلوا جلي لين لا نيل ني تي جلي يلا رلن كورا دفل ما لو كم يقد يقد تدي دفاي ورال دفاي اتي التكفير كفر لو واجي وهي عدية تدفكوي يبوي لا تدري جم تقرير العبارات القومي آه، أمر مير لبعيد مدرك بسرعة جد وعزت الجفن المسلك السبوي يمود قدنا تلل من طيارة بحور التوحيد كي دخل نوعك جيج التوحيد ومن لم يحط كبوكو خمنا بيقول علما كم كم بنهاية الحقائق كي ديوك دق دقي كبوكو خمنا بيقول كم كم كي نهاية doyee ko e, dëgg-dëgg yi ko gëlam yaxsal du am mukk nat mina takfir ci wéet kéeféro nit alal wasaiqa ci ak benn ak ndëgër luwaay kon nag loolu la jafel képp ko xam ne nag peegul xam-xam yi dayoo ak dëgg-dëgg ya e, te amut benn ak e, mën a weddi nit ki ci ak dëgër luwaay kon nag bu takfiroo nit ki nag ci caaxaan la nekk waaye tamit ne woon lam yaxut képp ko peegu di ilman xam-xam bi nihayatil xaqaayiq ci dëgg-dëgg nag eh, ci eh, dayoo ak dëgg-dëgg yi kooku lam yaxsal amut min a takfir ci weddi ci kiifaloo ni kaaxloo ala wasaayiq ci ak dëgër looy mi na faxe kon dafay nekk moom comme ku def loolu ne ka baaxi na comme aji gëstu anaat fii ci déem bi zol mi bi zol fii ci weem mu ngi mel bàyyi ma woowuñu jàppoonte waa ji bu koy rendi te amul koy rendee bàyyi ma di wequ bee far sulli lañ koy rendee mu ah paaka wuñ koy rendi mi ne ah dafa mel ni kooku daal noonu rek la mel mu ne fay kon dafay nekk ka baaxisin kam aji gëstu an at fii ci deem bi zol fii ci wala kam aji sànni na an ci boppam bi an fii ci bakkanam kam koo xam ne aji la safar ci boppam ngir bëgg àll ak boppam nga xam ne is ndax rubbama araada bëri na ba mu nammee takfira xëyri yéefarloot keneen ku dul moom fa yàq mu dal tabbi saamu fett gi yéefar woowu fii naaree ci te poqam maanaam ci dëndam waa da yonent bi alayhi wax ne képp koo xam ne daal aji wax la mbokkam ne ko yow anta kaafir yow yéefar gi moom ci moom lay dellu moo tamit is ndax rubbama araada bëri na ba mu nammoo takfir xëyri yéefirloo keneen fa yaqo mu dal di tabbi saamu fetteg yéefir woowu fi naxari ci teppokam maana ci dëndam nee na wakkaane nekk na an nawawi imaamu nawawi radiyallahu an moo àndale imaam nawawi di wax نن إن الله أنك يلا قد أعطى جانا أولياءه واليومي الكرامات أي ترانغ أي كرامة جانا لن أي كرامة التي ينقمني يومهم كرامة يوي فرع بنقاس لا المعجزات بنقاس لا تي بنقاسك ينقمني ميراكل ينجخون برفتامي إمام نعيني يلا دال جوخنا أولياءه مي أي, أي كرامة يقمني E du wut dara lu dul bànqaas la ci miracle yi joxoon yonent yi kon na mi ne falaa bida waru jaaxal kenn kenn an yoxat yow ne dinañ jox awliyaaw yàlla min al ibarat ci ay e waxin maa yoo xam ne yoxji dina lot an walis wax yooyu foofu lulu ulama borom xam-xam mu ana cause bi tax yàlla jox leen loo xam ne dina lottal foofu lulu ulama nee na fadla ngi an xëyrin walis keneen ko du li anam doxtuñu yastamidduun dañu sàkkoo tëbb min madadillahi ci tëbb ni yàlla wa rasul ak yeneen tëb loolu moo tax kon nag foofu seeni wax dina lottal fuhulul ulama foofu bu ñu waxee rek ñoom ñu lott nag ñàkk xam seen wax jooju fadlan an xayrihim ndaxte alquran ma wax ne fala taalamu nafsun ma uxfiya lahum min xurati ayuni jazaa ku ko surata sajja aya dix-sept boor na falaa taalamu xamu nafsun bakken maa la nga xam ne uxfiya nëbb nañ ko lahum ñeel min xurati ayun si sa dëggat maanaam sa dëgg seen xol jazaan mbirum mu ne aji fay ñeel leen wante xamuñ ko kooku surata sajja aya dix nee na xar ku xott nañ li laa ñeel min anfusihim seen bopp xott nañ xar baax ñeel seen bopp al awayda way baaxu yi fa xuriqa xotteef law ñe al awayda way baaxu yi foofu ñoom al muabbiruun mooy ñi nga xam ne way xalam lañ an jëlaalilaay ci màgg yàlla bi is nañ ci ndigalam wal mahfusun way wattu leen bi inaayatilaa ci jéglalee la waay nii ak gëtëg yàlla moo tamit waqaal wax na cheikhul islam al maxzumi سيغيزنا المغزو احنا جملة العلوم التي يجب على العبد تعلمها قبل الإنكار الستة يعني جملة العلوم بولم قم قمي التي قمني يجب تنور على العبد تجنبي من التعلم ودنور تجنبي تعلم قمكو قبل الإنكار نجك مو يكون ستة جرم بيننا Euh, Cheikh Islam Maxzumi nee na daal mbooleem xam-xam yi nga xam ne war na ci jaam bi mu xam ko njëkk muy contre kenn juróom-benn xam-xam yi war na kaa xam ba noppi di soog a contre mu mel ne ñu ko laaj ne ko juróom-benn xam-xam yooyu yan la nee na fooful bu ci njëkk daal maa mooy boo xam ne zukkira maa mooy loo xam ne zukkira tuddeen nañ ko min ci moom an yakuna mooy mu nekk ndaw fa moom xosnu zann rafet ak njort bi awliya ilaahi ci walu yàlla yi li yaquru li yaqubur li yaquruba ngir ñu jegeel min xadaratihim ci xadraak awliya yi fa yashrafu mu mën a seen ala maqasidim seen objectif yi seen jubluwaay nee na bu bu njëkk buñ ciy tudd daal mooy ne mu nekk ci moom rafet njort ci awliyaay mu rafet njort ci ñoom bu bu rafetee njort ci ñoom rek yàlla dina leen dina jegeel waa jooju ci seen xadara yi xadara ak awliyaaw yi ngir mën a seen seen objectif seen jubluwaay yi kon nag boobu mooy ci bu ci njëkk waaw tamit ne fa awala bu njëkk maa ci la a xam ne secret def nañ ko tudd ci juróom benn yooyu an yàkkanu mooy mu nekk indaw fa moom xusnu zanni rafet ak njort bi awliyaillaahi ci wàllu yàlla yi li yaqruba ngir jege jegel ko min xadaratihim ci xadara ak awliyaa yi fa yasrafu mu mën a seen ala maqaasadihim seen jubluwaay nee na fa inna man asa naka képp koo xam ne aji ñaawal zanna njortoom biim ci awliyaaw yi كوكو توري دكيف كمي أنا حضرتين ولسين بيو تبين كو دكيف سين حضرك أولياي كنت دومان سين سين جبلواي تموي ورالنت مويدلين ومن تريد كيف وانا دقف نكو من حضرتهم كي حضرك أولياء الله من فقط تريد دقف نكو عن حضرة الله كي بيغ يلي ورسوله أك بيغ إننتوي كيف وانا دقف نكو حضرك ولوي كوكو دقيف كوجا حضر بي أنا بيك حضرك بي ننتبه صلى الله أك بي ننتبه صلى الله عليه وسلم تي ومن تريد كيب وغم ندقف ننقحن حضرة الله تي بي يلا ورسولك بي ننتبه فقد أعوزه جفل ننكو الأن جفل نتمهم جفل ننكو أنوار الليري وجعنا بتحو أعمم تحت مسرين ننكو الأسرار مبودي تي képp ko xam ne dàqeef nañ ko ci pay yàlla ak maanaam jafel nañ ko mu am ay leer te soril nañ ko li nga xam ne mooy secret yi du ko am mi naa kayfa kawteef yanzur di xool an anwaar leer yi kawteef di xool leer yi man koo xam ne taraakamat toggalante na ala ayni basirati ci gët gëtug gis-gisam ak zulumaati lëndëm yi wala ak daar ak nëx-nëxi minaa kaw téef koo xam ne di xool ak leer koo xam ne gëtu gis-gisam yi toggalante na ak zulumaat ak ay ak daar minaa kooku nak lay gisee leer yi bal maanaa daal du gis dara ndaxte koo xam ne bu demee ba eh, tara eh, taraakam daal di fees ci gëtu gisam gi ak zulumaat ak ak daar daal di ci eh, toggaloo كون كو كو كو تيف ينظر الانوار نكلي كزاكل كو كاع القان مو كيخل بورني وعشرة المطففين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ججي بل بين رانا التيم على قلوبهم سن قلية بني ران موي تيلم قوة قمنا دفا دمبا كره موي تيلم وقمنا كرنسين قلية عم وعن لتهم تلمجو كرنسين قلية ما آه، سبب كان نكون يكذبون يكذبون يكذبون نكفان ما لا غم كان نكون يكذبون نكفاجو لول مو دم def ak rayin ala qulubim seen xol yooyu le kooku suratul mutaffifin ay 14 من وقال وانا في وصف الحل wasfil xal حل بورين عن الظلمات بعض فوق بعض إذا أعرج يده لم يكد يراها ولم يجعل الله له نورا فما له من نور كوكو سورة النور أي كرل بورين وخني دي السنغال نين الظلمات لن بعضها لن فوق بعض كون ينين من إذا أعرج بقين يده يخمسا لم يكد دقو يراها قس اللغو mi ne lëndëm ak ñenn ña ci kaw ñenn ña lëndëm na lëndëm goo xam ne bee bu génnoon ak loxoom sax du xaw ñi gis loxoom ngir lëndëm ga wala yu yàlla te deful allah yàlla lawu ñeel ko nuur ak leer te yàlla deful génn ak leer ñeel ko fa maa lawu déddu ko ñeel min nuurin ci ak leer ko gësoratu nuur ay karan cheikhul islam al maxzumi mooy kii wax mi ne bokk na ci juróom benn yooyu juróom benn mboolem xam-xam yi nga xam ne war na ci jaam bi mu xam ko njëkk muy contre ak critique ak wedd weddi minaan yëkkunu mu nekk xafaala di aji yër mujizat al anbiya miracle prophète yi wa al awliya te mu yër tamit li nga xam ne mooy karamaka awliya yi e soog a mën a contre wa minaa bokk na ci mulazamatul mutala mooy mu taqoog di yër kutubu tafsir téere tafsir yi والتأويل أك تأويل معرفتي أقم بأسرار الكتاب تي سكرتيري القرآن والسنة أك سكرك سنة ومن أبوك نجي كثرة التعامل بري أك ستنتل والنظري قول في آيات الصفات آية ملكاني وأخبارها قبارية واطلاعي أكير جمير على جميع جمهور ما قال الله وحنا السلف نجيت والغلف نيوت نيوت صلفي في ذلك الجلول ومعرفة أقم من ana kan axasa moo jàpp-jàpp bi zahir ci li feeñ wa man ak ka nga xam bi tawil ci tawil lay waxe wa min dalil ci tegtal ak tawil ak wu ci gën a dëgër wa arja ak wu ci gën a ak lëng dena wa min a bokk na ci juróom yi nga xam ne eh, faw jaam bi xam ko njëkk muy contre مي كثرة الخصم وبرقوز على منازع مجتهدين كي قد هو يفرلي وعدلتهم أكسنة تقتل التي قبل استندوا ويدو ننك إلى عجم تتلي من كتابة القرآن وسنة أكسنة وقياس القياس E mu bëri ak xuus ci xaccoog mujjit yi diine yi ak seen i tegtal yi nga xam ne wéeru nañ ci jëm ci jëlee ko ci alquran ak sunna ak qiyaas muy xuus ci loolu lu bëri wa mina bokk na ci woo moom amate moo ci ëpp importance ji am solo maarif maarifatu istilahaatil qawmi mooy mu xam yéenoo ko gaa yi mooy istilah gaa bi maana jumu jumu jumowu gaa yi gaa yi yan kàddu lañ jumoo bee mën wax wax jile wala wax joo xam ne ñoom ñëpp euh, dëppoo nañ ci fii maa ci xam ne abbaru ñu ngi koy firi ana ci moom min tëjëli ci ak tëjëli zaate wax naa la mooy tëjëli wu nëbbu وصورة عن تجل صورة ما تجل وفيني وتنوع المقام تاعك فصو مقامي وانواع الزوق تاعك فصو قوي قمني نينكو مص وسكر تاعك فصو مانيتي قمنا امن والمحي تاعك فصو قمنا موي فصو يو اي اي افاسي والفناء تاعك فصو قمنا موي فصو جيخي والمكافات تاعك فصو قمنا اك فاي فاي فاي اك fayantooy bi ila xëyri zalik jëm ci yeneen yu di yooyu ak façon fayantoo bi ila xëyri zalika jëm ci leneen lu dul loolu mi maa ji laa xam ne yettuwul dina gudd nashru ak tasaarim e, yii yëpp jaam bi war na mu xam ko e, nag muy ak contre ak weddi dara kon incha allah mbokk mi maa ngi lay jox eh, dig daje incha allah bi beneen darsu ci kashful albas عن فيضة القدماء أبي العباس الشيعة إبراهيم عجيب رحيم نيس رضي الله عنه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يعني يلا ما يديك تبرف أن يكون فلينكم الحمد أول دعوان وآخر والحمد لله من حين إلى حين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته